des fois maa ngi gis gars yi di ma envoyé message si Instagram bi parce que man depuis gën naa ci Facebook bi quoi mais des fois gars ma ay kii screenshot yi may nit yi may posté affaire yooyu ça fait plaisir quand même bon des fois xam nga rek ak yi nga lire da ça te fait ça te fait plaisir quoi dafa fa daf lay reetaan loo et tout so ah loolu moom nag xanaa nga laajte xale góor yi man je sais pas parce que man déjà d'habitude rek tout donc su ñuy ñëw que dama xale góor yi ñenn ñi dama leen neex donc ça fait bizarre quoi en mais bon xaw ma daal xaw ma daal xanaa loolu moom da nga koy laaj xale góor yi rek sëy eh, ay ay ay ay ay <laughs> boobu day xaar boobu moom day xaar yeah xarit daa quelques années rek inshallah yeah yii ceebu jën moom mooy sama plat préféré ak suppu kànja namm naa ko trop moom yàqamti naa yegg Sénégal ba sama yaa toggal moom loolu moom namm naa ko trop surtout ak cere tam xarit bi ma rata tardé nii mais boobu foog ñu biisaat ko mën naa togg ceebu yàpp mën naa togg ceebu jën yaasa parce que des fois sama bopp so ya mën bien vrai que air bi et tout mais mën naa togg. jaabiraat <laughs>